jàmm ci xibaaru marax yi ñu fës ko yéen a doore ak tiis ak naqar wi dal nag ci suñum réew ak génnuk àdduna professeur Abdoulaye Makhtar Mbow amal nañu tey ji ci àllarba ji ñaar fukki fan ak juróom ci weeru satumbar atum ñaari ju nekk ñaar fukk ak ñeent levée de corps ba ci teewaayu ilimaanu jëwriñ ya fa rek teewaloon njiital réew mi dañu wax it ci lay biiri xibaar lépp lu jëm ci wàllum politique ak nag joxante loxo gi dexu dox rek ci diggante PDS bépp joxante loxo daal dinay rek nag xar parti bu ab Ablaye Wade ñaax ndax bu ñu sukkandikoo ci Doudou wadd ak ñamu àndal bi lépp ndogal day wane rek ñàkk moom ak ñàkk wormaal ku ko ñàkk joxe seen xalaat ca boobu lépp parti dañu demit ci sous préfecture bu ndam foofu nag amal nañ fa ab ndaje ci njiital sous préfet ba di abdoulaye xarma ak mbolem commission rek buy yëngu ak di liggéey ci dimbale ña loru ca mbënd ma bu ñu sukkandikoo nag ci seeni kaddu ci juróom fukk ak juróom benn quartier ngacc nañ ko rek nag ba mu daal di lu jëm nag ci wàññi ña loru ca boobu mbënd ca rek leen ndëmbal lañu leen nës tuut ma ñëw ak yenn ci yaatal gi. naa leen ko léegi ci bopp xibaar yi ku ne xam na ne nag suñum réew fi mu toll nii ci aduna ak naqar la nekk ak génn ko professeur bu mag dina ko xam-xam di professeur Abdoulaye Makhtar Mbow moom nag daan nañ amal tey ji ci àllarba ji ab levée de corps am ci rek nag teewaayu élimaanu jëwriñ yi moom nag moo ngay xam ne rek nañ jiital réew mi moo ko fa ji ak njaalam nga ni la dëdd na nak aw touram du meusa fay ndax jëfam ju rafet. panafricain am même soudé waxuñu ko ci témoignage yi ndax bokk na ci membre fondateur yi taxawaloon la fédération des étudiants africains noirs en France té lolu defu ci won xajjak sen lepp lu fay won africain rek bolé la woon ko ci kuréel gogou woné na it dimension internationale ndax defe naa su dul ku njëkk ñu njëkk ci ay africain waxuma la sénégalais boo xam ne jiite na kuréel goo xam ne kuréelu àdduna wërgël këpp la bokk na li gën a may fit sénégalais yi ba tey organisation internationale boo jël dafa mel ni sénégalais yi ñoo fa ëpp moom li mu doon précurseur damay wax précurseur précoce bokk na ci li gën a may fit sénégalais yi kon jëmm ju mel noonu bu fi jógee perte bu rëy la ci senegal perte bu rëy la ci Afrique perte bu rëy la ci àdduna waaye nag yàlla mooy borom dogal te may na ko loo xam ne ñu ngi ñaan ñun ñëpp mu may ñu ko ndax dund na ci lim ci ay at loo xam ne néew na fii ci senegal nit dund ko waaye teewul yàlla saa su ne tey la rek tey la saa su ne jeex na rek jeex na ñu war a dénkante ñun ñi fi bàyyi ñu ciy jiital njaboot bi di leen dénk muñ ndax xaddis wax mooy bu fi bàyyi ko mënaloo ko dara doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan doo ko dëkkal waaye ñaar a des mooy muñ ak ñaanal ko kon ñuy dénkante ñun ñëpp muñ di ko ñaanal yàlla oyofal suuf ci kawam yàlla boole ko ci borom këru barzaq yu yaatu yi mu jàkkaarloog këram ci aljana yàlla yàggal sarax bi suñu loxo ñun ñëpp ñeex ko fayantu yàlla may ñu ñu teg suñu tànk fi mu ko tegoon moom di daaneel ci wax ni ku mel nii dañ ko war a joxe référence au Sénégal et particulièrement à la jeunesse sénégalaise ndax koo xam ne bi mu demee ba ñépp jàpp ni war naa moom boppam war naa noppalu ndax waxuma la retraite waaye weesu na largement l'âge de la retraite mu continuer ci komba politique dans le sens noble du terme mooy du xëccoo nguur du fal leen ma waaye lépp luy xalaat buy defar Sénégal buy rafetal mbir yi kenn du ma ko jiitu loolu dafa wane désintéressement don de soi pour la patrie ñu war ko jox exemple xale yëpp. ba tey ci boobu lépp cérémonie la ñuy nag daal di desandi ndax bëri na it ay kilifa rekk yu fa teewoon ñu ëpp ci ñoom daal di nañu yëkkati rek nag ay kàdduy ceede indi nag lu xamle lu baax rek lañu ñu daal di xam ci jëmm jooje nga xamante ni jëfam ak xam-xamam bëtt na frontière Sénégal law ci àddina wërngal këpp. par rapport à ce beau témoignage yi fi jot a jaar yëpp. en Amadou de son vivant on devait appliquer la charte de la bonne gouvernance j'ai entendu le premier ministre dire que ni signataire que il avait participé aux assises et aujourd'hui les premières règles de la bonne gouvernance ils ne l'ont pas appliqué moi je voudrais que les gens soient que les gens soient sincères avec eux-mêmes que nit ñi bu nit génnee àdduna ñuy fàttaliku la nga xam ni moom la leen digle woon wala lan la parce que nit mënuloo pacte ba mu tegoon ngeen teggi ko fële ba pare di ko témoignal leneen donc loolu dal nañ ci gën a xel li des ci giiru dund li des giiru dund pour rendre meilleur hommage bu ñu mën rendre Amadou Makhtar Mbow moy ñu appliquer la charte de la bonne gouvernance su ko jam ci jaar jaaram li ñu man mooy sant yàlla waaye sant yàlla ci ñaar bi que professeur Amadou Makhtar modèle ne da nga commencé di jangalé que le nga nek euh, yor les missions de l'éducation de base mujj nga nek professeur au collège mujj nga nek école normale di former après nga nek ministre nek député mujj nga nek directeur général u UNESCO. da fay wan kenn ku ne ci ñun né yoon boko ko ci xam-xam étape par étape mën nga ci yé li nak fierté la ci Sénégal gep tay ñu ñëw. taxawu koo xam ne doomu Sénégal la liggéey lu mu liggéey ndaw mag jigéen kenn ku nekk bàyyi li ngay def nguur gi ñëw taxaw message bi ma ci jàpp man mooy kenn ku ne yaay bind lettre bi ñu lay liiral sa gannaaw kon lettre boobu na rafet en tout cas yàlla nañ am bis bi mais l'Afrique et le monde doivent ñu am doomu nit ku ñuul bu jàngee fi màggee fii ba pare tey mu am ci. ci dëjëm bi di lancer en appel pour que gouvernement bi. ci programme ci euh, programme yu bees yi ñu bëgg def ci école yi ñu def lepp pour jàngale Amadou Matar Mbow ci primaire bi ci école de formation et ci université di sante bu baax aussi chef de l'État parce que man dama bok ci ñi nga xamné euh, ci fondation bi ñu def légui bu ñu créer fondation Amadou Matar Mbow boo xam ne dañu bëgg suñu ciosan suñu culture ak la phytothérapie suñu garab yi ñu mën am yo xamné tay à partir de nos cultures ñu valoriser ko pour que Afrique mëna occupé occuper place am mon moo ñu jox recommandation lu bëgg ci fondation bi te fondation bobu xamna ci ay fën yu new dina mëna développer liggéey ak euh, chercheurs yi université ak université Amadou Mahtar Mbow pour xool nu ñu mëna en tout cas jappalé Sénégal surtout suñu valeur endogène ñu wax ci wàllum tukki ak secretaire d'État de Sénégalais de l'extérieur di Amadou Chérif Diouf bu ñu sukkandikoo nag ci ay kàddoom nguurug Sénégal am na rek ay pexe ngir faj nag jafe-jafe ya doomam ya di am ca bitim réew rawatina nag ci jot passeport yenn réew ya leen war a dalal. suñu liggéey mooy liggéey ba fileeg ñaari at. kenn dootul déggati mooy problème mu passeport Sénégal mooy maanaam dinañ créer des mécanismes yo xamné bu sa passeport jeexee da ngay dem récupérer ko tranquillement mais fii rek dañ ko fi fek il fallait que ñu jéem ci dara en attendant motax ñu def suñu plan conjoncturel depuis ñu ñëw Espagne mo doon fi mu gënon metté parce que 4000 passeports yo xamné ne kenn ko de enrôlé nañu te mënuñ ko défar la fa fek fek fa 5 mois yo xamné nit ñi du tok di xaar seen passeport plan bi ñu tek permettre nañu tay cinq mois yooyu réduire nañ ko pratiquement à trois semaines un mois et incha allah fi ñu mooy képp ku soxla passeport séance tenante nañ la ko mën a defaral Espagne loolu bu loolu weesoo yónnee nañ quatorze quatorze missions de passeport mooy maanaam dans quatorze pays ñun en collaboration avec ministère de l' intérieur yónnee nañ nit ñi dans quatorze pays et fii fin d' année bi am na yeneen douze pays yuñ fa bëri yóbbu donc vingt six pays. en pratiquement six mois l'effort effort bu le gouvernement du Sénégal pour éradiquer pour régler ce problème là temporairement mais l'idée je régler ko définitivement entre autres idées yi ñu waxoon mooy de passeport à 10 ans c'est sur la table et chaque mercredi le ministre de l'intérieur a confirmé. confirmé, Le conseil des ministres man moom rek xaar parce que xam naa problème bu problème. rek voyez, eh, monsieur le secrétaire d'État alors a il un les passeports faut mu tolloo mais ñu ngi sant yalla parce que bini ñuy doog a yegsi a ko doon gis ci réseau yi foo passeport passeport passeport loolu wàññeeku na bu baax a baax grâce au travail bi nga xam ne moom def avec l'aide du ministre de l'intérieur parce que seen budget sax dañ ma ne woon jeex na ma dit leen loolu jeex non non non parce que c'est notre devoir en tant que état sénégalais bu la passeport ak nga am problème yoo xam boy booy yi dañ ci eh, eh, sénégalais yi mën nga ne ah de responsabilité la parce que tamit il faut la responsabilité individuelle ku ci nekk tamit une part de responsabilité am problème bi mais lorsqu'il s'agit de passeport c'est notre responsabilité en tant que état du Sénégal Si nous réew des ñu soxlaa seen passeport ñu jox leen ko man loolu laay wax gars tout le temps Et yàlla ngi may le ministre de l'intérieur daf ciy jàpp bu baax a sama ministre madame Yacine Fall léeg-léeg mën na ko woowal diw mu woo ko bref ñun ñëpp ñoo sotandoo problème bi loolu moo ñu permettre ñu am résultat yi ñu am résultats. moom Amadou Chérif Diouf sax nag la ñuy daal di desandi ndax it nag àdduna ci 192 ndawi Sénégal ya ca Tripoli ci anamu jaarul yoon moom nag kilifa gi xam leneen ne de ëllëg incha allah ci alxames ji nguurug Sénégal dina rek dem jëli yooyu lay doomam daal lay del daal di leen di delloo si fii ci biir réew mi. waa xale yi ñu ngi bloqué Libye dañ leen jàpp en esclavage et cetera et cetera bi ñu yegsee ma toog ak madame la ministre Yacine Fall ñu waxtaan ci. ñu ne waa Libye est-ce que mën nañ faa dem gars yi nañu ah Libye de y a un problème sécuritaire la bas ma ne leen est-ce que am na ñu fay dem gars yi ne ma effectivement am na ñu fay dem ma ne leen man pare naa dem ñu waxtaan ceeg sama ministre ñu ne ma Chérif demal ma dem fa dajeeg ñooñu ñuy wax ni dañ fa bloqué nous bloqué parce que procédure administrative yi tax ñu ñëw dafa doon yéex parce que nous yóbbu suñu sauf conduite ci autorité libyenne parfois pour un virgule ñu ko donc on avait du mal à avoir le quorum ba avons naka lañ di jafe-jafe ñu egg fa di noter nag Libye depuis 2014 amul benn autorité sénégalaise bu teg tànkam Libye ñu yegg si fa ndeysaan communauté bi kontaan ndax li ñu yàgg gis autorité ñu toog waxtaan ak ñoom ñu expliquer ñu lan mooy problème bi ñu def ko ñu def fa comme niñ koy defee fépp fu ñu dem mooy maanaam dem fëgg ci autorité yi ma le ministre de l'intérieur libyen dajeeg euh, euh, un directeur chargé des affaires consulaires exposer leen le problème ne ñun dañoo bëgg suñuy doom fii ñu fexe nu ñu ñibbee réew ma ndax seen réew daf leen soxla dañoo bëgg sax ñi nekk ci prison bi ngeen génnee leen ndax Sénégal dafa soxla ay doomam ndax dañ nekk ci mouvance boo xam ne ñëpp la ñu soxla pour développer le Sénégal waxtaan ak sénégalais yi ne leen incha allah bu ñu yàlla mayee jàmm. liggéey nañu waxtaan nañu ak autorités yi gëm naa ni du yàggati dara votre problème sera réglé muy problème yi ñu bëgg a ñibbisi muy problème mu passeport parce que ni mu ko waxee autorités yi dañ faa gëj yàlla dimbali ñu ñu dem fa chaque semaine chaque jour may woo notre ambassadeur Moustapha Sow bi nga xam ne moom Tunisie la nekk di ko laaj li ñu waxante woon foo leen ci toll noonu lañ ciy toppee di ci toppee yàlla def na ci sutura le 26 à 16h30 la ñu war a yegg si aéroport Blaise Diagne maa ngi naan gars yi sa bëgg naa dem accueillir leen incha allah mission de passeport tamit bi nga xam ne gojoon na fa torop au moment où je vous parle mission de passeport egg na démb sax ñu ngi may yónnee ay ay vidéo donc di ko sant yàlla fekk foofu ñaari problème yu majeur et tey jii ma lay waxal jàpp nañ ni problème yooyu au moins lijjanti nañ ko en attendant. ñu wax jëm ci loolee ñu naan PACASEN di nag ab programme buy jàppale rek commune ak agglomération yi ci réew mi bu ñu sukkandikoo nag ci jëwriñ ji yor lépp lu jëm ci wàllum collectivité territoriale di Balla Moussa Fofana mbégte képp la suñu réew nag am ci boobu lépp programme ndax rek may na ko mu daal di financer lu toll ci mel mille vingt trois ci ay projet ci njëgug cent soixante dix milliards ci suñu koppar. PACASEN nag programme la bu nga xam le la ko la ko wundu moy dolel lepp képp kuy collectivité ci nga gëna mëna dimbalé askan wi looloo ko tax a tax a alal ji nga xamné Sénégal def na ko ci toll na ci 170 milliards mu don lu lu takku euh, ci ci ad yi ñu wessu té li gëna am solo modi programme la bo xamné duñu ñëw rek jox la alal ji la démal bala ñu la ko jox dañ nan la ah ñun dé pour ñu jox la ko amna na doxalin

teg ko ñu projet bi bu projet bii kat projet bu am solo la ci kaw loolu lañ lay door jox boo càmbaree doxalin woowu dafa den doxalin wu am solo ci ci ñaari poñ projet bi municipalité bi bëgg projet faaw mu joyanti ñoŋal ak amélioré ak euh, gën gana saytu ni muy municipalité am bu ko def même bu weesoo programme Birek, rek loolu njëriñ la ci donc loolu dafa nek lu ama ama solo lo xam japp jàpp ne war nañ ko gëna wasaré ci yenen programme yi fi ne euh, ci noonu ci euh, gafak 170 milliards yi nga xam waxna ko sank da naka financer nañ lu tollok 1023 projets ci Sénégal gi yépp xam nga loolu mom amna solo te ni ko doxalee ne municipalité bi mo wara teug projet am aussi dolel municipalité la ci xerañte bu mu wara am di teugui projet présenté ko ba tëggin wi dal xel ñu dal ko financer té niñ leen bàyyee ñom ñu tëggal seen bop seeni projet motax ñu am projet yu bari té wuute xam nga boo xoolee projet yi di nga gis yo nga xamné ci mbiri marché la yi ci mbiri ndox la yi ci mbiri électricité yi ci mbiri santé da ngay gis né kon projet bi la koy orienter moy bëgg-bëggu askan wi té ko ko gis xamné ne bëgg-bëggu askan wi né don na lu nga xamné ne na euh, ci gox bi ak par rapport ak gox bële

suuf si di gën di am jafe-jafe gàncax gi di gën am jafe-jafe coppite yooyu nañu wut ay projet yu nga xam ne day tax ñu gën a mën a dëgër ak am ndëgër laay ci coppite yooyu nga xam ne dafa nañ ci climat bi bi ci topp tam euh, wax nañ ko euh, municipalité maire yu bëri waxtaan nañ ci PACASEN baax na waaye nag war dañ koo ubbi ci dëkku dëkku àll bi euh, maanaam monde rural ndax ku Sénégal monde monde rural c'est près de quarante 46 pour cent donc loolu mënuñoo rek tepp tepp rek baña am programme bu melni am euh, vraiment réussite yu am solo yi ñu bañ ko fa euh, xol donc loolu tam nek na lu ñu tabbi ci langug politique yi ak parti Abdoulaye wadd bi nga xam ne nag daal dinay xar ñaar la ko jug la du leen rekk lu dul joxante loxo gi dox ci digganteem ak APR ci fu député yi nag ñu daal di jëm kii di Doudou wadd ak rek ñamu àndal jàkkaarloo nañ ak taskatu xibaar yi di xamle seen ko ñàkk ànd ca parti PDS boobay na muy doxee. li tax ñu ñëw fii. président de la république dafa jël benn décret présidentiel boo xam de bii dafa assemblée nationale 64 ans d'indépendance loolu mësul denc ci constitution bi ren le mës a am ngoonte boon dañuy wax guleet jàpp na ne moom luy am njeexital le ëllëg ci doxinu réew mi te dinañ ko waxtaane mu ne contexte bi ñu nekk nii nag daf ñu jubal ci ay législatives anticipées loolu tax na ñu ñëw te dañu war a nekk bokk ci loolu dinañ ci ànd dinañ ci dem mais dañ ci dem ak suñu aada dañ ciy dem ak suñu ay valeur dañ ciy dem ak suñu taxawaay suñu taxawaay mooy sauver honneuru PDS PDS dañ ko jël def ko ni sëru njiit lay bo wet ci biti la préservation des valeurs principes et règles ni nga xamné mom moom la PDS dundé 1974 ba légui mu mayen ko muy gravir échelon yépp ba tay ñu mëna am li taxaw journaliste taxaw ngay wax ci biti té kenn jàpp la mu né principe yooyu na suñu principe directeur mom lañu wara mëna continuer ba jotta pouvoir mu né préservation euh, protection nag li ci mujj mooy Ablaye Wade ba am na film bu ko wane déet démb dafa nekk koo xam ne kii ku sénégalais yi wala préserver la alalu àdduna la du alalu Sénégal alalu Afrique la tey biig boog wala ci journalu tey am na seen benn collègue bu ko bind bu wax président yépp mais dafa ne Ablaye Wade démocrate la sage la savant la généreux le am ouverture mën na déglu té dina dégg orientation yooyu nga xamné ñu jël nag loolu mooy fi ñu jëm tay ak sénégalais action bi ñu nekk nek pour ñu jëm fa ñun dañu lancer ben appel à tous nos militants ak sunu militantes ak sénégalais ak sympathisants yi ak képp ko xamné ki te nga am yërmande ci réew mi nga nekk patriote ñu woola pour ñu ànd jàpp yëkkati réew mi jëmale ko beneen ci beneen yoon mais garder li nga xam ne mooy le patrimoine commun du président Abdoulaye Wade PDS dafa am nit dafa am ñoo xam ne dañuy taxaw ci rendi ko te ñoo ñu jéggiwul ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ñoo jiite parti bi en particulier Karim Meïssa sawal sous-préfet bu Ndam daal nay dajale nag mboolem commission bu yëngu rek ci wàllu ña loroo nag ca mbënn ma ca sous-préfecture ba doom amal ak ñoom ay waxtaan bu ñu sukkandikoo nag ci ay kàddoom ci juróom fukk ak juróom benn quartier la ñu rek daal di ngacc nag ba mu jeex seenum ndox daal nay jeex xam leen na it ne wàññi gañi amal jëm rek ca ña yàqule ñoo ngi koy amal ba jëm yàlla tey te it tamit ndimbal la ñu warloo ak ñoom daañu leen ko rek jébbal balaa yàgg Abdoulaye Xaar ma réunion bi doon porté ci ñeenti point bu njëkk bi mooy yan zone moo amoon ndox te fi mu ne nii liggéey bi tax zone yooyu amatul ndox zone yooyu ñu ngi toll ci fanweer ak benn yoo xam ne nii euh, donc amoon na ndox mais ak liggéey bi nga xam ni def nañ ko ci ak équipe yi ñu àndal di liggéey euh, zone yooyu yëpp euh, yàlla dogal na n'est-ce donc zone yooyu libéré nañ ndox mi libéré nañu zone yooyu benen deuxième point bi mo nekkone zone yi nga xamni euh, war nañ fa def liguey bu am solo parce que ba légui ndox ma nga fa zone yoy ñu ko tak ci fukk euh, yo xamni euh, ci bir dëkk bi la nekk yo xamni n'est-ce pas nit ñaa ngi fay liguey bi moy médecin chef district xam nañu ni souvent yu melni bu amé ay taw ay inondation dafay nekk loo xam ni ni mën na indi ay fièvre yu mel non donc médecin chef def na ben ben ki ben plan d'action bo xamni ni Euh, projeté nañ ko nit ñi partagé ko amendé ko validé ko beneen bi moo tolloon ci wàllu recensement bi recensement bi ñoo ngi koy def tàmbali nañ ko bërki démb et gouverneur euh, réquisitionné loolu nañu fukki oto jox ñu ko oto yi def nañ ci carburant bon nit ñaa ngi sur le terrain euh, donc def nañ recensement nee nañ juróom fukki quartier ak juróom benn déjà pare nañu fiche yi nga xam ne defaroon nañu ko donc junni ak téeméer ak fa juróom-ñett fukk ak ñett yi Euh, saisir nañ ko ba pare ñetti junni ak téeméer ak fukk ak juróom yi moom la ñu war a moom lañ nekk nii di ko saisir euh, téeméeri relais ak juróom fukk environ xam naa war na ko ëpp sax ñoom ñoo nekk sur le terrain di def liggéey bi. la na a fës ci xibaaru bitim réew yi RDC la ñuy njëkkee foofu nag seetlu nañu ne ñu bari rek ñu caabi féete woon na gannaaw daal di nañ leen bàyyi ñu daal di ñibbi ca seeni mbokk nguuru ko Burkina Faso ngay xamle ne mucc na ci nag foqarti nguur yu bari yuñ fa rek nag doom jéema amal réewum Cameroun nekk nag ci ay jafe-jafe ak ko mbënd dañu wàcc it ca Proche-Orient xoole rek cong ga am ci Israël tey ji ci àllarba ji El Hadj Babawaat dal leen jàmm seen xibaaru bitim réew ñu doole ko fee ci république démocratique du Congo bi nga xam ne junni ak juróom benn téeméeri prisonniers ñoom nag tegg nañ leen loxo maanaam libéré nañ leen loolu nag mi ngi ajook programme bi nga xam ne nguur ga amaloon na ko rek ngir mën a féexal li nga xam ne mooy kaso yi nekk ca dëkk ba li nag mi ngi am gannaaw bi nga xam ne ay vidéo tukkee ñu ca kaso bu Makala ay nit di daw di génn seen bopp fële nga xam ne mooy ca Burkina Faso nguur ga fa nekk di njëgandiku muy gouvernement de transition moom nag jàpp na wax na si ñaar fukk na ñett ci weer septembre bi nee na moom nag am na ay coup d'état yu bëri yoo xam ne maanaam ay pexe daaneel nguur goo xam ne amoon na fa waaye nag ñoom dañu ko neenal loolu nag ñoom ñu ko mi ngi am na ci eh, xalaatu ki nga xam ne moo fa nekkoon njiitu guvernement transition ba di colonel eh, Henri Damimba ak ay ministre yu ci bokkoon neen nag boobu ba léegi ay semaine a ngi nii ñu koy jéem a daaneel nguuram fële ca Cameroun taw yu métti moo fa am ci bés yu ay yi ñu génn bañ def rek fukki nit ak juróom-ñaar yu ñàkk seen bakkan loolu ma nga amee ca bëj gannaaru réew ma toll ci juróom-ñetti ak juróom téeméeri dëkkuwaay ñoom dañoo yàqu ay hectares yu bari ñoom nag ndox ma nangu leen ñu suux waaye nag jur gu bari ñàkk ci seen bakkan loolu nag mu nekk lu métti ca askan wa ba nguur ga ma ngay ut ay pexe ngir taxaw leen fële nga xam te moy proche orient ci xex bi am ci diggante Israël ak Hezbollah libanais ma ngay wéy ba légui nak tay ji nak wa Hezbollah libanais dañoo songu Israël ci ab makkaanam bombardé ko ak ay roquette fofu ci bëj saalum liban mu nek nak lo xam ne ni jaaxale ñi ndax xex ba ma ngay wéy diggante Hezbollah ak Israël da nga jëf seen xibaar bi bitim réew ba légui inshallah bu El Hadj wàccee roppalaan gi mën ma daal di yëkkati xibaar yi gannaaw ba ma leen sante ak gërëm leen ci topp gi ak dégloo gi ci suñuy plateforme digitale ak suñuy réseau câblé noonu it lay sante bay Mor ak équipe ba ñoom ñu fare woon ci xarala yi ba gis geeg dégg gi mën a yemb Sidi Sarr ci réalisation bi woy leen di desandi ak programme Kaolack TV nan yàlla nañu borom bi may fanaano jàmm